Voilà, chers amis téléspectateurs yéen ñu ñuy seetaan à travers euh, Thiès Media, tey ci la ñu un immense plaisir de di ñëw fi nga xamante ni mooy quartier Diamaguène fekk si ki nga xamante ni notre cher ami euh, le député Abdou Mbow mi nga xamante ni tey jii moom la yàlla dogal mi ngi di def li nga xamante ni mooy son caravane ah bis bi nag dëgg-dëgg nekk lu am solo fii si Thiès voilà ndeysaan mi ngi noonu on est là avec euh, monsieur Abdou Mbow waaw war a fas yéene def nag li nga xamante ni mooy benn caravane fii si diwaanu Thiès. noonu day def li nga xamante ni mooy cortège bi voilà donc pour préparer li nga xamante ni mooy sortie euh, monsieur Abdou Mbow euh, ñu ngi déparé nag fi nga xamante ni mooy ci quartier bi fa mu dëkk ànd koog ay xaritam ay am di jàmm moom ay mbokkam sympathisants yi militants yi ñëpp génn nañu pour ànd ki nga xamante ni mooy monsieur Abdou Mbow ci li nga xamante ni mooy caravane bi muy def.

voilà voyez la caravane bi de ngi La caravane baa ngi noonu ñu ngi génn benn par benn di dem. et on va tout faire pour que notre candidat passe dès le premier tour. monsieur le président li ñu dafa mel dal na xel. waaw dal na xel parce que xam nga élection c'est vrai que ce n'est jamais gagné d'avance mais liggéey bi ngay liggéey ak li nga xamante ne ngay am comme pressentiment ci nit ñi tax nga et aujourd'hui le candidat Amadou Ba est largement.

mooy ànd ak say dëkk bokk ñoom loo am di waxtaan ak ñoom mais aussi fexe bu am une complicité boo xamante ne nii ça te a à chaque fois nga mën boo ko soxlaa wala boo leen soxlaa nga ñëw toog ak ñoom waxtaan ak ñoom sottante ak ñoom xalaat loolu moo waral tey suñu waa koñ rek lañu ñu àndal mobiliser wuñu sax yeneen quartier yi wala yeneen section yi c'est juste les jeunes et femmes de notre quartier nous avons un man di cette procession. merci beaucoup. merci.

musuñu ko nek bay nan dañuy mëna et je pense que lolu suñ ko dé wax c'est pour la stabilité de ce pays c'est pour li nga la sécurité de ce pays et jàpp à que sénégalais yi ak sénégalais yi xam nañ ko te ci Abdoulaye ñu xam fi ay nit ñoo xamné ay que valeur lañ mbir mi opposition pouvoir c'est juste xool lan mo gën ci réew mi ak lan moy musiba réew mi tey lañ toll et je pense que li gën ci réew mi wax nañ ko nit ñi wax nañ ko même ñi nga xamné ñi ngi nekk dans l'opposition ils disent que le candidat idéal pour ce pays au moment où nous sommes c'est Amadou Ba pour la stabilité de ce pays ñi ci dess nak ñi ci dess nak réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk mais réew mi bëgg ko mi ngi tàmbalee ci tànnal ko njiit boo xamante nii mat na mais njiit boo xamante ni aussi xam na lan mooy intérêt Sénégal tey jii waruñu fi nekk sax di wax waxu programme sénégalais yi ñoo xam ne tey dañu toll foo xam ne liñ naan à la croisée des chemins te réew bu tollee foofu dañu war a xool li nga xam ne. mom moko ko jëmele a kanam dañu wax li nga xamné mom mo wara continuité bi nga xamné moy indi une stabilité dans ce pays mais xol lo xamné surtout ndaw ñi nga xamanteni ñoo nek la majorité de la population dinañ am xel mu dal pour que ëllëg ñu mëna a am yaakar ci réew loolu nak japp na né mëno ko jox ko xamné da fay wala suñu la falee nga fan laay commencé lan moo nek ci réew mi wala fan la ñuy fexe à alal pour que li ñu commencé ñu à ko je pense que l'olu cuune mënu ko weesu njaaxum mënul passé c'est pourquoi nous appelons tous les démocrates de ce pays à voter le 24 mars en mode bas pour qu'ils gagnent le premier tour pour la transparence et la stabilité de ce pays

il faut que les gens reviennent à la raison il faut que nous aussi nous ñu wax nit ñi wax leen li nga nous mo fi nit ñi su kese pour wut lu am lu am dinañ ko tabaxé ak kër mais dañu on est là au service des populations président Macky Sall liguey pour les populations aujourd'hui Thiès buur nekkee ville universitaire yàlla ak président Macky Sall moo tax su fekkee tey am na ISEP yàlla ak président Macky Sall moo tax tey bu fekkee ne dëkk bi yëpp leer na yàlla ak président Macky Sall moo tax su fekkee ne tey dañuy wax ne autoroute am na fi ba Thiès Dakar soo ko dee def da ngay def au moins 45 une heure de temps président Macky Sall moo tax suñ nee chemin de fer tey jii soqali nañ ko président Macky Sall moom moo tax. su fekkee ne dañ ne financement yi jigéen ñi jot nañ ci à gogo a Thiès président Macky Sall moo tax je pense que nit koo xam ne defal na la loolu jël koo xam ne c'était son premier ministre mu ne moom lay jox pour mu nekk candidat je pense que xel yi mën nañ dal ci kooku pour voter ko pour que le Sénégal puisse aller de l'avant loolu nag li koy matérialiser mooy école mooy yaa ngi defar askan ndax xale yi di defar ñu jàng c'est parce que yaa ngi defar réew mi donc Souleymane mi war na mën a tax aussi ngeen voté pour Thierno te yemul foofu parce que boo demee boo demee à Abidjan yaa son frère muy Thierno Thiam bu CREM nga xam ne à chaque fois su ma demee Abidjan engagement bi nga xam ne am na ko au côté du président Macky Sall moo tax ñu jox ko fa ay responsabilité pour dire seulement que Thiès dañu war maintenant xam ne réew mi dañu war a def ndànk xam ne comme ni ma leen ko waxee ñaar rekk moo fi am dem benn aventure te kenn ñaanu ko yàlla ndax nag même Anta Babacar wax na ko nee na. xaw diw moy diw diw ma lolou moy lan et ça c'est de l'escroquerie politique parce que su ngeen gisee Habib Sy jóg ñu jóge fofu ñu né Cheikh Tidiane Dieye jóg ñu né dañuy retirer seen candidature lolou mom moy ñom dañu bëgg a Sénégal ñom xamuñu lan moy enjeu présidentiel xamuñu lan moy enjeu yor réew mais li leen ñor moy être dans l'aventure bëgg a rew mi et je pense que les Thiessois du ko monsieur le président Ablaïdé, ensemble pour la victoire au soir du 24 mars je vous remercie dimanche lay xew demain on aura une réunion dinañ am réunion ci ngoon gi pour wax la stratégie à adopter pour dimanche parce que tant que élection yi jéxul mbir bi jéxul moy dimanche buñu ñu bureau de vote légui nak dama len di remercier di wax né dama bëggone ñëpp parce que togu nañ dogu pour ñëpp ñu tok ñu dogu mais

amul kenn koo d'abord je commencerai par le comité électoral bi yépp muy du coordonnateur Moustapha ba ci suuf ñépp remercier di remercier aussi les jeunes yi nga xam les jeunes de Diamaguène particulièrement le président de l'ASC le Chérif Ba

ñooñu dañ leen di di parce que liggéey boo ci il faut ngeen li c'est parce que yor kër gi kër gu bu c'est que ça aussi il faut que vous le compreniez il ne s'agit pas de remercier non non non quand des gens viennent élargir une famille il faudrait les remercier parce que dañuy xam ne lu am lu amul mérite ça il faut le dire mais ñi nga xam ne ñoo fi nekkone ba tax ñu ñew kenn ëpp leen mérite je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler pour élargir une famille ñu xam ne gën amul kenn ko xamanteni ni bañ na Abdou Mbow amul y en pas li fi am moy et chaque fois bo waxtane nit di ko comprendre moy des incompréhensions te lool nit ku nekk war na ko mëna comprendre je pense que maintenant li ñu wara def moy su dimanche qu'on s'organise mag ñi ñu jëli leen teel la jëli ñu voté parce que yàlla def na weeru koor la bu ñu xëddee que tout le monde se mobilise école nag liñ naan bukki bu doxee bu yabee ponkal ci doxin bi la il faut qu'on prenne nos responsabilités gis nga politique aussi fullaak fayda da cee baax fii dëgg la ku nekk mën na def looy mais fii moom on va dicter notre loi parce que il faut que ça soit très clair ay xale yu ndaw mënuñu ñëw fekk fii ci école bi bëgguñu fi indil benn coow coow loolu moom personne ne l'acceptera et loolu ça il faut qu'on se le tienne pour dit les choses seront très claires bu fekkee nit ñi ñëw nañ yaru voté jàmm rek am su fekkee bëgg nañ leneen nag leneen am je pense que ça aussi il faut que ça soit très clair et qu'on se le tienne pour dit maa ngi leen di remercier merci